des lois delluwaat terrain bi. Hmm. c'est parce que euh, ñoom dañoo japonais ni euh, voilà euh, ils ont des des des choses à faire prévaloir. parce que ñoom dañoo japonais ni. Hmm. discussion bi hmm. ça ne se fera pas ça ne se fera pas avec c'est-à-dire que autour d'une table seulement. parce que il y a des acquis yoo xamante ne bëgg de la république prendre en compte. mu en charge en compte de ces de ces de ces de leurs revendications. lu mel la question du troisième mandat. et aussi la question de comment d'adresse yoo xam ñëpp a war ci eh, élection yi. bëgg waaw damaa euh, euh, nga analyser ma titre bi. Mhm. le F24 retourne dans la rue. non mais la euh, rue justement la rue donc lim wax tension yi ñu jugee encore c'est c'est c'est des manifestations. si si si si si si la rue c'est pas c'est pas c'est pas comment dire je comprends ce ne sont pas des manifestations ça peut être des manifestations pacifiques. non ce ne sont pas des manifestations. mais le 24 retourne dans la rue Madame, war nañu war a mën xaar ay tension waat encore une fois. Euh, le quotidien, je pense que parce que en, rouge, mhm. euh, journalisme, justement, ça aurait en rouge, donc mhm. c'est-à-dire, on peut tous s'attendre, sur la euh, violence. La rue. Okay. Le, le, F24 retourne sur la rue. Mm, mm. c'est pas, c'est pas, dans, pas la rue. dans la rue. Ah. C'est pas Serif c'est pas forcément des am ay comment dire ay manifestations yo am tension. Ok. Mën nañu retourner dans mais la rouge. Non, non. Mais non, c'est un titre <laughs> bo am ten titrage lañ def. Ça symbolise okay. peut-être le danger le rouge. Okay, mais aussi F24 encore une fois bu mu ah. soso ba légui Serif Fallo nous mm. gis fi F24 woote violence. Mmh. F24 tous les manifestations je ne manifestation rassemblement là, tous les les les rassemblements que le F24 euh, a appelé ici hmm. euh, place de la nation moi, ay rassemblement rassemblement pacifique hmm. yoo xam avec seen njaboot ñu ñëw ñu les sen message. donc pareil. ñëpp euh, donc que euh, F24 donc que comprendre ce titre quotidien bi. non mais le quotidien mon titre peut-être mu logique mu logique am sa ligne éditoriale une fallu encore une fois kenn du ko euh, kenn du ko comment dire mais aussi il faut pas aussi euh, le quotidien à chaque fois tamit mo andi euh, lo xamante des fay andi tension. Mm. F24 le tension dans ce pays fa woote rassemblement rassemblement yàgg na ko fi woote. Mm. ba paré mu jur jam ça mm. à dire que ñëpp ay euh, place de la nation. ñu wax ñu un sen message au président de la république ba paré ñu ñibi ku nek kërëm mais lolu la ñu le 9 et le 10 mais nous encore une fois selon le titre euh, c'est-à-dire que nous avons ci bi di tal ay pneus di ay comme on le fait non lolu euh, comment jeunesse bi depuis le jeudi. Hmm. mais F24 lu muy woté ni encore une fois man pour ni. Euh, c'est pour ñu delluwaat ci lolu hmm. ay yi am tension c'est-à-dire que nous ay pneus wala ay tal ay pieds ay ressources man jappuma ni F24 lolou la wote donc japp nga ni le quotidien ba léegi mi ngi ci logique am alors dañuy daal possible ak Vox Populi ma daal exactement Vox nak ak li nga xam nekk moo di le président Macky Sall da di amalon waxtan fa nga xam ne moy mooy daanaka Touba ak sëñ Moutara Bassirou Mbacké ñoom itam échange nañ lol jëm situation politico euh, fii si Sénégal exactement F24 mi ngi annoncer euh, série de manifestation le 9 ak le 10 mais la question qui se pose est-ce que ñom xamu ñu en amont wala kon euh, justement avant que ni hmm. l'une nu euh, préfet du ko c'est-à-dire des des pas mal d'analyse politiques ñi wax ni F24 ñoo leen gën a de ni que euh, du nangu manifestation vu que les deux communes c'est en sursis au cas échéant est-ce que on ne war a la détention des tensions parce que d'où le titre le quotidien non c'est une femme c'est-à-dire que. Hmm. bul jàpp ni préfet le préfet du ko nangu. Hmm. mën na ko nangu comme mën na ko bañ a nangu. mais man euh, man dama jàpp ni bu fekkee man mon opinion. Euh, actuellement c'est pas le moment propice. Mm. Euh, pour nous rassembler rassemblement mm. Mm. parce que euh, voilà dund depuis le jeudi passé parce que ligne bi la ñuy bañ non non peut-être suñu tension actuellement il faut apaiser la tension mais des yaa c'est-à-dire que c'est man waxuma ko ci sens bobu ok c'est ban sens nga ko doon waxee dama ne. au moment où nous sommes c'est-à-dire que fu mu to, fu ñu toll ni jamono jii nii. man japp na ni que euh, woote rassemblement actuellement euh, c'est pas le moment. xam nga parce que euh, dañoo soxla apaisement. Hmm. ci tension la ñu jógee bu métti ba léegi boo xoolee sax dañagul carrément on a les dégg matt yoo xamante ne ñoom ñoo tukkeewoon ci tension bobu hmm. donc dañoo soxla apaisement boire à maintenir euh, voilà ci dialogue wala lo xamantene bu fekke ay nit mën nañu ko dox dox euh, dox suuf hmm. ñu dem régler ko à l'amiable ñu def ko hmm. maintenant bu fekkee F24 dafay woote pour euh, encore ci seen logique de politique moo man duma leen koo parce que politique lañ nekk c'est des politiques donc politique Euh, jàmm kat ñoom jàmm la ñuy woote yaa non euh, mën nañu ko jàmm donc est-ce que euh, donc war nga mën a tiit parce que aussi des fois tamit alphan c'est difficile pour mm-hmm. pour ñu mu laa comprendre mm-hmm. sànq titre le quotidien bi nga ne foofu dara dafa xew parce que F24 yàgg naa woote ñu pare si jàmm léegi lan la amal ak ay manifestation ak ay tension mun na woote waat ñu ni demaat si jàmm xamal lu tax nga comprendre ma ok man nekkaluma fii ken mm-hmm. man damay wax ci les deux sens. si si dama ne si si si voilà ba légui ñu da jël parti voilà faut nga comprendre dama né dama né le quotidien mu ci ligne éditorialam hmm. bu féké titre nañu ba paré mu def titre bi en rouge. Hmm. ñëpp xam ni rouge. c'est le danger xaaral s'il te plaît s'il te plaît rek dafa urgent alors Gassama ñu lay nuyu yaa ngi en direct. waaw Gassama. waaw yaa ngi en direct 5 TV fo nek jëmono ji

léegi yëngu-yëngu yi bu ñu amee noonu am na boole ñu bi noonu seen kër na a jël seen bagage ñi ñoom Dakar fii xamuñu fi kenn hmm. bu ñu xamuñu fi kenn kon ñoom seen bagage mënuñu ñibbi noonu. Hmm. te ñu bàyyi fii seen bagage loolu moo fi nekk comme euh, hmm. beneen situation booy ñu ngi nii ñu ngi jege porte des su jaay visile mais visile ba tey ñoom nanguñu mbir mi. mais ana étudiant yi ba tey ñu ngi si bunt bi taxaw. waaw ñu ngi si bunt bi léegi ba ma jéem a jege yeneen étudiant. Euh, pour nga nga nga déglu seen personne sax ñoom sa ok ok. ok maa lay revenir léegi. alors euh, donc ñu lay xaaraat ci kanam tuuti inshallah nga jege li nga xamné ne que moo di étudiants donc euh, benn communiqué nak mo wàcc si wàllu université bu nakaaw que ni na xale yi daal di jël seen ay bagages parce que dañuy tëj bobu de université mais amoon na ñoo xam ne dañoo ñibi seen ay dëkk manifestation yi fekku leen fa euh, donc bu communiqué bobu daal di wàccee nak ñu daal di dellusiwaat fii si Dakar pour euh, jël seen ay bagages nak non nak leen daal di tëjee li nga xamné ne que moo université bi que ni tëj nañ euh, jusqu'à nouvel ordre lu nu mel nak aussi étudiant yi neexu len parce que bëgg nañ jël seen ay bagages yi nga tam ne ci au sein li nga xam ko modi bu campus bi euh, donc liñ bëgg mooy dal daal leen ni euh, jox seen ay bagages encore une fois euh suñu pay ñu daal di ñibbi seen ay bir kër ñu daal defaraat li nga xam ko université ba donc euh, ñoñu Arfan ba ñu doon université bi nak fekku leen fa doona demoon seenu ko dëkk yëf yi am seenu ginaaw ñu génne communiquer ni kaay nañ jël seen bagage parce que dañuy tëj université bi ñeneen bu bëgg ko jël mais amuñu accès si biir li nga xam ko modi campus bi waaw mais c' est c' est normal Serigne Fallou euh, parce que am na ay yàqu-yàqu yoo xamante ne yu jéggi dayoo. ci université bi. donc dafay jaadu pour que les autorités. yoo hmm. xamante ne les autorités compétentes. yoo hmm. xamante ne ñoom ñooy euh, ŋànk université bi. Hmm ñu mën a tëj université bi euh, jéem a xool euh, le bilan yoo xamante ne euh, lu ñu lu fa lu fajata yàqu donc bu fekkee yow da ngay ñëw jël sa bagage en tant que étudiant Euh, il faut aussi nga patienter c'est-à-dire que fokk ñu patienter hmm. ñu essayer de communiquer avec les vigiles les hmm. vigiles ñoom tamit am na ñu ñeen ilif mais communiquer génn que vendredi la et que on est mardi voilà maintenant donc je pense pas am waroon am communication si lu waroon am mooy ñu buntu yi ba vendredi euh, xale yi jël sen bagage. ñu ñibbi seen ay kër suñu bay di defaraat. xama xama lu tam ma la il faut que ñu communiquer. parce que les vigiles sont nekkaluñu fa seen bopp. am nit ñol ñoo leen fa tek hmm. maintenant yo bo ñu étudiants bu ñu ñëwee ne éti euh, euh, comment dire ces vigiles hmm. ñun dañuy dugg pour jël suñu bagage. Hmm. aajoo na ci vigile yooyu ñu woote hiérarchie. Euh, pour ñu jox leen aval pour ñu tijji étudiant yooyu moo tax ma ne la foog ñu patienter. mais communiqué bi génn na communiqué bi même bu génnee seen fàllu. il faut ñu patienter non foog ñu patienter. yow boo ñëwee ci bunt bi fekk nga fa ay vigiles est-ce que tout le monde vigiles yi mën na ràññee ni ñëpp ay étudiant lañu. déjà ñu ngi ne manifestation bi dafa rax. mais je pense ku nekk am na sa carte mais ku nekk am na sa carte. même am boo amee carte boo amee carte.

Euh, force Buntubi pour nga dem bagage on est dans une structure réglementée l'université actuellement dafa ay violence yo xamantene yo hmm. xamantene kenn ko maintenant il y nga taxaw euh, négocier euh, les autorités pour ñu sa après nga ok alors des si li nga xam l'enquête exactement